drapeau deuxième édition drapeau Matar ba dimanche le 9 dimanche le 9 maanaam mene arène Adrien Senghor a jega mise 1 million dimanche a kar mais fatuna ref kama fa Babou Faye passa le 2 millions fa 3000 arène Adrien Senghor dimanche a kar bo i ndetanga euh, maaga arène Adrien Senghor le 6 le 6 novembre sargal Diagne Diagne Djilass euh, ten Doudou Niane a faka do sargal Diagne Djilass le 6 novembre arène Adrien Senghor 1 million voilà euh, i mbaño mbeec le 16 mana carte de production a xooyta arène euh, Ibamar tegan prix ke 3 millions le 16 dimanche carte de production ten xooytu a tegan prix ke millions Ndeye Fatou mbayam lum ten na ref ka maaga den faam mumo voilà boo xaayee le 15 fa le 16 maanaam production a tegan a prix ke 3 millions samedi fa caf 1 million et dimanche millions 15 fa présentation finale fe xexene voilà Abdou Tine Abdou Tine yo ɗiɓa of kooku usine technique Ngoundiane Modou Faye ordinateur voilà merci que le merci après la présentation de la grande finale dox ci diggante usine technique bu Ngunjaan ak euh, ordinateur ñu ngi noonu usine technique ordinateur ordinateur féete à droite ngembo ngemb bu xonk usine technique féete à gauche ngembo ngemb Lagos def demi-finale bu neex ordinateur éliminé Toubacouta par avertissement usine technique éliminé Dady Mbouloum en finale mu nekk combat bi mujjé ci journée bi tey bi combat bi mujjé ci journée bi tey bii mooy dox ci diggante ordinateur à droite ngemb lu usine technique à gauche ngembal Lagos ordinateur yëkkati na loxo ba teg ko ci bopp usine technique ordinateur day jël loxo bi teg ko ci bopp usine technique loolu nag xëy na ci seeni feem la bu ko usine technique bëggee def day bañ daw génnaat technique ordinateur finale journée Diaks Wrestling Production le 2 octobre ci terrain gaal gi bu xaar wala terrain gaal gi bu ndeysaan ñu ngay tàppante di tegantey loxo ne di di sa morom toll nii ñu ngay jàppante ca kaw jàppante ca kaw moom fàq rek mu romb la ni 508 nga wër ko ndomb technique jël na tànk Touba jël na tànk ordinateur usine technique day daan ordinateur usine technique daan na ordinateur usine technique daan na ordinateur hey usine technique daan na ordinateur jël na tànk ba daw ak moom dëpp ko mu jeex tàkk mu ngi noonu mbokk yi loolu lañ leen indiloon tey ci teere gaal gi bu xaar yàlla jag si Wrestling Production moo fi woote woon deuxième gala de l'itam ci saison bi ba mu ubbeeg léegi saison bi nag démb la ubbi jag si woote woon te Iba Mar Diop teg 2 millions 500 tey mu woote ci xaar yàlla teg 1 million 500 kon mu ngi noonu mbokk yi jërë ngeen jëf cant ak ngërëm ñel na leen ba ëllëg incha allah jaajëf